mooy euh, parenage bi euh, parrainage citoyen ngeen def donc normalement ci juróom-ñaari région yu nekk. Mhm. war ngeen fa am ñaari deux mille ñaari junni. Mhm. nit ak lu tegal. Mhm. loolu fan ngeen ci toll loo xam ne nit ñi mën nañ ko comprendre aussi exactement. waaw mooy li ma la wax yow war nga ko maîtriser quoi chiffres yi war nga maîtriser. non du ma fi nekk di joxe chiffres yi puisque le travail est encore en cours. xam nga bu ma fi nekk di bilan à mi parcours. wax man bu bu ma joxee chiffres yi léegi nii day mel nii suba dañuy continuer parrainage donc du coup chiffres yi ma ko joxee léegi bu ma fi jógee ci plateau bi day li ma la mën a wax li ma la mën a wax mooy que ni. ñun on a pratiquement bouclé le parrainage la semaine prochaine incha allah dinañ def une réunion. Euh, finaliser li ñuy finaliser et puis ñu avancer mais li ma la mën a wax ñuy Pape suñuy parrainage c'est pratiquement bouclé suñu euh, nu ñu koy waxati caution c'est bouclé les femmes ñoom ñoo takku taxaw ne ren ñoom ñooy joxe caution donc pare nañ ci loolu suñu candidat pare na pour dem aux élections sénégalais yi pare nañ pour voter. ñu jàpp ne aussi demoon ngeen ci ay élections. Mm-hmm.